أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبي مبكي أم دي جامعي دقل سفين اف ام 98.2 نيولين دي نيو فين دان نيو دي زيار بباح دي جوه نيو واتشواي أخ زيار فضيلة الشيخ كيرنا حامدو di ñaan yàlla dolli ko tawfiix ñaan yàlla yann yàlla dolli ko sutura bu baax a baax a baax niki noonu defal ko waa safina saadaati ñoom ñépp jël nuyoo di ko ko jox mu eggalal ñu ko ba ci fadilatu cheikh Thierno Bachir ayadahu llahu wa ataala baqaa'ah wa amada sixatah yàlla na ko yàlla def di nuyu mbokk yeb jël nuyu diko jox cheikh Diallo sahib saahibul ibriix fàttewuñu it Abdou sam ndjay di nuyu directrice soxna ñu ma di ñaanal yàlla tawfiq sutura diko ñaanal yàlla mu àndax kantan gu mu ko mëna taxawe sas wi nga xamantene mo teggu ci kawam waye am ci yaakar bu baax ndax yi mu ràngoo ci ay qualité macha allah allahuma la aduru yàlla bu ko ca topp ñaanal ko ko ñaanal ko it ñi mu fi nekkal ñépp ci kër gi ci ñi joxe xabaar yeex technicien yeex reportage yi ñoom ñëpp rek yal na yàlla sàmm leen jàppale leen seen réussite mooy réussite ma réussite ma mooy réussite rajo bi yal na yàlla defal leen yéen ñépp tawfiixul ilaahi di nuyu suñu wayjur alxaaja Kumba Jaani Saar di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala tawfiix moom it yàlla guddal fanam dolli ko wér yàggal ko ci kanamu njaboot gi di ñaanal famille bi ñoom ñépp rekk yal yàlla defal leen jàmm di nuyu suñu papa El Hadj Abdoulaye Diop ci Scat Urbam suñu yaay yi fi ne Adja Maymuna Diouf maire Ndioufa Adja Nogay Maguette Diop ñoom ñëpp Babacar a ngi leen di nuyu xat-xat yi rek ak yëngu yi moo ko téye ba léegi waaye xelam yëpp mu ngi fii ci yéen mag ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ñu ñun it Pape Amadou Sow rajo yokkute Pa Wargo One El Hadj Baye Ngale Dia El du Doudou Seck fële ca Liberté 4 elaji yor Yoro Ndiaye fii ci skat Urbam ah ñu melni ni suñu papa elaji Aline Fall ñom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax te seen kaddu yëpp ñom moy le gor gi di wax rek papa Amadou Sow di leen ñaanal jamm yokkute rek inshallah allah nee yalla doli na yàlla doolu sutura yàlla sàmmal ñu leen nee na ñu kenn góor ak jigen magax ndaw ku ci nekk ñu ngi lay ziar fu ñu tok ñom buñ fa di dégg rajo bi rek. mbégte la ñuy amee waaye rawatina bu ngeen di wax ba di leen bàyyi xel loolu sedd na seen xol lool te ñu xam ne rajo bi rajo diine rek la kon ñoom mag ñooñu ñu ngi boole seen kàddu di ñaanal ñëpp di leen ndokkeel di ñaan yàlla dolli seen sutura bu baax di nuyu naaji bi mu jotal ñu nuyoo waa hôpital Abbas Ndao rawatina waa réanimation ñu déglu émission bi foofu ñoom ñëpp ñu nekk hôpital Philippe Magagne Senghor ñu nekk ci hôpitaux yi malade yal na yàlla saafara leen fàttew ñu saxaaba Sahaba Diop ñu yàlla dolli ko sutura moom it Abdoulaye Sarr Gunte Libas Pape Mor fële ci yoof ñuy waa yoof ñëpp ngeen gital ñu nuyoo sopp ya fa nekk yëpp Moulay Abdoul Aziz Al Muhaddam Alaaji Pam Malick Mbeng Kaboy Alaaji Pam Malick Mbeng Yoof Mariste moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax yal yàlla sàmm ko di nuyu al aima imam Ousmane Faye jotal ñu nuyoo mbokk yooyu yëpp waaye fàttewuñu al imam Ibrahima Baas imam Abdou Dieye Samb Pafal Moustapha Diouf ñu mel ni ñoom ñi fi mas jaar ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yal na yàlla defal leen jàmm Ibrahima it ñu ngi koy ñaanal moom it yal na yàlla defal ko tawfiqul ilaahi bu baax a baax a baax dëkkandoo yi soxna Racky Adja Marie Fat Badji ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal yàlla defal leen taw fii ñoom it ci seen ñaan yeex yëpp rek yal yàlla sàmmal ñu leen Adja Binte fële ci yow Papa Assane Gueye moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Alioune Mbengue ak ña muy toogal fële ci ndenaat ñu ngi koy nuyu sopp ya fa nekk ñoom ñëpp góor naar Seck ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu fa muy El Hadji Baye Ngaala ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ba góor ak jigéen mag ndaw ñoom yàlla defal leen tawfiix ñoom it ci ñaan yeex ki yëpp jël nuyoo di ko jox kooleem jotal ñu ko njaboot gi ñoom ñëpp rek yal na yàlla sàmmal ñu leen yal na yàlla dolli seen suturo aji Aminata Ndiaye fële ci daari foor ñu ngi koy nuyu Aminata Sow Pikine moom it macha allah Abdou Sarr Pikine rue 10 Soxna Binta Mbaye Liberté 5 ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yooyu yëpp nag jël nuyoo yi jox ko soppe yi nag te ko ci loxol El Hadji Malick le coordinateur mu ndongali gay Malick ban ngeen jotal ñu ko soppee yëpp fu ñu mën nekk yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla sàmmal ñu leen atoo ñu ngoone ngoom fële ci yoof suñu doom bàyyi ay itam mari ñu ngi leen di nuyu nday te Konte Dame Touré ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kon nag su ko defee mbokk yi déglu Safina FM 98 point ñu ngi ñëw tey ci seen émission xam sa diine ginnaaw ay laaj xam ne mbokk yi sàkku woon nañ ko ñuy sàkkuteef incha allah goo xamante ne nii eh, war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp macha allah di masaw ñi nekk ci tawat ci tiis xat-xat yëpp yal na yàlla saafara yal na yàlla dolli sutura ndax ñun ñëpp yàlla daf ñu fi indi dañuy delluwaat ñu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu moo dundu doomu aadama ñoo ànd kon ku ci am ku dem rek ñu ngi la koy massaw di la ko jaal muy tiis yal na yàlla yërëm ñi dem tey laaju mbokk yi dafa màcc lool ci loolu ci nan lañuy taxawoo aji dem ñaan gi lan la mel ni am na émission bu ñu fi defoon ci loolu ci nan la ñuy waajale doomu aadama bi toll ci sukkuraat ba ba ñu koy jébbal boroomam waaye tey dañu ciy indi rek benn résumé bu ndaw rek su ko defee danañ ci ñëwaat ci tomb boobu gën ko yaatal incha allah ndax doomu aadama bi dëkku fi dafa ñëw rek jaar fi am lu mu fi def ngir yàlla nattu ko xool mu delluwaat mu fay ko la ma doon jëf yàlla nekk lu baax bu ñu waxee nag mbokk yi néew doomu aadama bi war na xam ne lu mu yàgg-yàgg ci moom bés dana ñëw lu jébbal ko boroomam di massaw bu baax ak jaal ñaanal suñu soppe suñu wayjur El Hadj Baye Ngaale magam ji nga xamante ne dëddunu di way jur ci ñëpp tànn Koura ja ñu ko xam ci tànn ja Dia ñoom nag yàlla xare aljana yàlla na ko yàlla dolli ay leer ñi na ko fa jiitoo ñu mu bokkal bésax ñi na ko fay fekk ñoom ñëpp yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen oyofal suuf si seen kaw dëgëral seen làmmiñ ëllëgit ñu mën a tontu laaj yeen leen di laaj te mu nekk lu jub incha allah yàlla yàlla leen ko defal جلنن كي صلى الله عليه وسلم مني ما الميت في القبر إلا كالغريق المغوص ينتظر دعوة تلقحه من, من أبيه أو أخيه أو صديق له جلنن كي صلى الله عليه وسلم مني كي جن عدنا ki génn àddina dafa mel ni ku lab kon mbokk yi la sabab seen laaj ñu ngi wax ne dañuy dégg ñuy wax lekk-lekk ne aji dem ji jaaduwul walla waruñu ko jàngal alxuraan kon boo ne duñ ko jàngal alxuraan rekk man nga ne bon kenn du ko ñaanal ah ñoom dëkk ñu ne ah loolu dana leen jaaxal lool ñaata nit dina fi jege ñu koy ñaanal di ko defal ñetti fan juróom ñetti fan ñeent fukki guddi yooyu yëpp di def anniversaire at mu jot mu am ñu leen wax ne loolu day bidaa la maanaam lu baaxul la a ah, ñu ne bon ndëkk loolu lan la ci lislaam wax kon ndëkk looy def rek xamal sa diine lan la la sant yenente bi dafa wax ci xadis bi ñu junje léegi am beneen xadis mu ne ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min salaat doomu aadama bi bu génnee àddina rek jëfam arrêté na ba mu des ñett yenente bi nee ne ku génn àdduna rek sa jëf arrêté na manaa mënatoo def waaye am na nag ñett yoo xamante ne nii moom du arrêté ñu ne ko yooyu yàlla yaa rasulallah mu ne sadaqa jaariya ilmun yuntafau bi walad saalix yadu lahu sarax maanaam lu baax loo fi ba def muy continuer sadaqa jaariya da nga def dara ci yoonu yàlla mu nekk fi ma jox la ci misaal da nga fi jëmbat garab garab gi màgg na fi ba am ker bu soxna ñu ma doxoon ba sonn ñëw toog féexlu fa toogaay boobu fa soxna ñu ma toog féexlu fa yow jiitu nga barsax yàgg na amaana sax ñu xaw la fàtte waaye garab googu yaa ko fi defoon jëmma jooju ci toog rekk dañu la ci bindal tiyaba yow mako fa defon te jiitu barsax lolou moy sadaqa jariya sarax buy continuer ñu tudde ko sarax œuvre bu baax la bo fi def bàyyi fi kon non seulement ya ngi protéger environnement bi di nuy bu baax Abdoulaye Diallo macha allah di ñaanal yàlla tawfiq environnement macha allah it di émission bu am solo lool lool lool wax dëgg yàlla yal nañ ko yàlla fayal. dëkk directrice ñu ma macha allah émission boobu émission bu am solo la wax dëgg yàlla am solo lool sax kon yaa ngi contribuer ci environnement jëmbat nga garab ker rek dañ la ciy fay wala boog garab ga dem na ba am doomi màng wala papaay wala banaan wala walla wala yeneen ci mboolem xeeti fruit ñi sant ture Cissé sàmm Kébé jaar fa wett fa xéewlu mu ne loola dañ la ciy defal yool wala boog benn njanaaw moo doon naaw di naaw ba sonn dal fa dañ la ciy bindal tiyaaba wala boog mu ñëw ci xéewal googale ci garab ga mu ut sa moom njanaaw moom picc ma dañ la ciy bindal tiyaaba lépp lu am res luy dund lu ne xéewlu na moo xam ker la def walla dafa wet ci meññeef walla ci xob ya la jël ñu am luñ ko ci tettal ci wàllu faj yaramam mu jël ko jëfandikoo ko wala ca xasmala la wala ca banqaas ya la soxla woon lu muy liggéey am gor ci ngir liggéey dara lu ci nit mën a jariñoo yiw woowa dañ la koy defal yow ma jiitu sax kon yonent bi bu ne sadaqa jaariya kon kii dem waxuma la ñu ñaanal ko waaye moom sax bu laa dem na ñaanal boppam bàyyi fi mooy defal œuvre bu mel noonu wala nga bënn teen ba ndox jafee bënn teen ba ndox jafee ba tey mën nga bënn teen bënn teen mooy nga ne ah diwa ngi nii kat ñoo dëkk naa ko xëccal ndox bënnal nga ko teen nga utal ko branchement defal ko ko nekk ah gis naa coono bi ngay daj am robine ngi nii amaana sax nga warlul ko ne ko bu facture bi ñëwee naa ko fay waaye même boo ko deful sax nga génn indil ko loolu rek bënnal nga ko teen kon ñoom lu ñu si naan luñ ci sangu luñ ci fóot luñ ci jàpp luñ ci di si def jaamu yàlla lu mu mën a doon wala mu amalaat yi yow yiw woowa donte la jiitu nga barzaq da nga ciy am moo xam forage la wala teen ci dëkk kaw yi jur ga di fa jaar nag yi ñuy wëggale fas yeex la nee nax yeneen yépp xar yi bëy yi di ci naan naan ngooga ñu cay def yow mooma donte la jiitu nga barzaq yool booba daf lay fekki foofa ñu la koy bindal tiyaaba école la boo fi tabaxoon bàyyi ko fi moo xam yaa def lépp walla participer nga ci feex ñi ñaa ngi ci jariñu di ci jàng di fi jële xam-xam ñooña fay jàng ñooña yool boobu daf lay fekk sa barzaq jiitu nga fi lu yàgg dispensaire moo xam lu mu mën a doon case de santé la post de santé la centre de santé la ba ci hôpital la lu mu ci mën a doon ku fa mas a faju fi sabilillah mu ne kon yiw woowa daf lay fekk si kon loolu mooy ax yeneen yu mel noonu sadaqa ya kon mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 nañu góorgóorlu ñu ñëpp mën a xalaat defal suñu bopp yu mel noonu soo mënul tabax école manoo gas teen maanaam comme ni ma ko waxee wala utal nit robinet ndox mi di ñëw ci moom mu yomb ko léegi jëmbat garab xëj na du jafe wala wam mu jafee fekkal garab gu ñu gu ñu jëmbat nga taxawu ko di ko toppatoo di ko arrosé waaw toppatoo ko ba mu màgg ëllëg yool booba daf lay fekk si sadaqa jaariya walad saalix yad'u lahu doom ju baax joo fi bàyyi mu lay ñaanal doom nag daf ciy duggaale xarit soppe wëllëre am di jàmm jëkkër jabar ñépp ku la ñaanal ci ginnaaw gi rek day dugg foofule ñaan googule daf lay fekk si kon yonente bi wan nañu ne doom aadama bi war nañ ko ñaanal war na ñaanal boppam ilmun yuntafau bihi nga jàngal nit ki xam-xam ñu ne ah diw dey moo encadré sàmba si sàmba si nekk na technicien sàmba si encadré na diw diw nekk na technicien diw moo jàngal diw diw nekk na menuisier diw moo jàngal diw El Hadj xale yi mu formé yépp ci atelier bi xale yooyu yépp loolu mooy ilmun yuntafau bihi ci anam boo ko jëlee loo fi jàngale ci xam-xamu diine ci xam-xamu àddina yi nit di ko jëfandikoo ci lu dagan ci lu neex yàlla nga ko jàngale loola mu say faggu di ci tuur ña xam yiw woowale daf lay fekk se ilmun yuntafau bihi kon gis nga mbokk yi lislaam buntu xewal yi mu ñu ubbil ni mu bare lool ndax ki dem manatul ñaanal boppam motax yenente bi ne léppam arrêté na waye ñett yi mom du arrêté kon na ngeen ci gor walad salih yad'u lahu nga fexe ba tagat njabot gi xamal leen ne sa ginnaw dañ la wara ñaanal sa ginnaw dañ la wara ñaanal dila sakul ñaan daf lay fekki sadaqa jariya fexe ba am lo fi bàyyi lu mu mën a doon rek moo xam toogukaay nga def nit ñi di ci toog walla ker la comme ni ma waxoon jëmbat garab wala yu ni mel yooyu yépp doom aadama yi sa yiw daf lay fekk wala sax nga initier jëf ju baax fexe rek ba am benn journée boo def tudde ko set setal set setal environnement bi journée dëkkandoo journée nangam journée nangam muy jàppalante yooye ku la ci roy fu mu mën a doon yonente bi ne man dalla ala xayrin ka failihi kon gis nga mbokk yi ñiy dem bu ñu leen fàtte luñ leen ñaanal ñoom danañ si jot kon ñaanal leen jaadu na ñaanal leen jaadu na yonente bi ne mal mayitu fi l qabri illa kal gariq fa mel ni ku lab ci géej di xaar ku ko ku ko ku ko tàllal loxo pour xettali ko mu ngi xaar ku ko ñaanal ci ñi ma tudd ñëpp nag mu jot ko moom sa barzax ga mu ne loola daf koy xettali waaye mënatul génn moom di def lu baax façon yooyu ma wax rek ñetta yooyu moo ko fa man di fekk su la fekkee nag mu ñaanal la yowit kon nañu leen di defal ñaan nañu leen di defal istighfar bokk na ci sadaxaat jaariya yooyu nga di leen defal istixfaar di leen saraxel di leen jàngal alxuraan bu kenn njàngam alquran ci néew du ko jariñ parce que jàng ko woon bi muy dund wala nàngam yërmande yàlla mbokk mi weesu na foofu bu ñu xatal diine yàlla ji yërmande yàlla tàllal na ko ba noppi yaatu na bu ñu ko xatal nit ki du ne daawul jàng alxuraan yow kay xamal li nga xam rek waye ñaan fo ñaanal sa mbokk julit daf koy dab insha allah rabbi yàlla nak moy xol ndax day jëlale wala bok ndax yu akhiz kon nañu leen di jàngal alquran nañu leen di saraxel nañu leen di defal istighfar nañu leen di defal istighfar yenente bi da daan def bu suulee néew ba noppi dafay taxaw ne istaxfiru li axikum haza fa innahu la yusal daan sul ba noppi rek ab diir mu ne jéggalul leen seen mbokk mi jéggalul leen seen mbokk mi léegi nag ñu ngi koy laaj ah gis nga sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na wa ma ataakum rasulu fa huzu lu mu leen digal def leen te loolu ñépp ci dëppoone lu wér la ñaanal leen seen mbokk mii ñu ngi koy laaj faneen mu ne ñaanal leen ko at tasbit mu am ndëgër laay ba li ko malaayka yi di laaj mu man ci tontu mu wér su ko defee mu jàll la première étape loolu bu dul woon ñaan yonente bi du ko digle bu dul woon ñaan yonente bi du ko digle waaw yonente bi daana dugg ci bàmmeel dëgg fa ay kàddu ci ñaar ci biir bàmmeel ñu leen di xisaab ci mu naa xisaabu bàmmeel parce que xisaab ay étape la xisaabu àddina gi am na am na foo xam ne boo fi laa jóge ci àddina bu la yàlla waree raxas dina la xisaab fii ci àddina am na loo xamante ne ci biir bàmmeel la la koy xisaabe am na loo xam ne allaaxira la la koy xisaabe yonent bi dugg ci bàmmeel dégg ñaari kàddu ñu leen di xisaab waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël banta bu toy tek ko ci bàmmeeli samp ko ci ne amna yaakar wala ma ngi ñaan yàlla banta bi bu laa wow yàlla jéggel leen ma tax bo gisé ñen nañu bu ñu suulee ne bu pare jël banta bu toy samp ko ci wala jël ndox soti ko ci lolu lañ ci jublu muy jëfi yonente bobu sallallahu alayhi wa sallam ta def naka sahaba saxaaba yépp ngi tew waaw amma sax ñu wax ne daana jàngal suratul ikhlasi tis'an wa tis'un quatre-vingt-dix-neuf lixlaas daana ko jàng ñeneen ñi ne daana jël bant bu tooy jàng ko ci door ko samp ñeneen ñu ne daana samp bu noppi jàng kon yonente bi daana ñaanal néew yi kon nag fokk ñuy ñaanal ñi jiitu kon mu jël bant boobu damma ko ci digg bi sampal ki genn wàlla gi sampal ki genn wàlla gi ne ndax lay li ann zalika yuxaffifu anhum fi qabrihim حتى ييبس هذه الجريدة القدراء نياكا نبانتا بي فيه مونغي توي يالا دنا أيوفال خساب بين لين دي خساب ني تي سي تي بير بامل آه. كندك لول بوديمي تي بوخاري بوديمي تي مسلم نيوم نيب سلا نانكو فا دي نيوم استاذ موسى بالدي ما شاء الله ديكو زيار بو باخ يالا يالا ديفال كو سوتورو بو باخ دي نيو سوبي ييب فنيو مانا نيك يينا ني سين اميسيون خمسه دينه Euh, soppe ya nekk yëmbal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Adja mère Khoudia Mboob ñaam ngoom fële ci Mariste yaa Aysa Diallo Maymuna Jaw HLM ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu daam Touré fii la ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah Serigne Diop Ndiaye euh, taalibe da baax ñu ngi koy nuyu bu baax soppe yi fu ñu mën a nekk rek di déglu Safina ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, di am kontaante lool ci ànd bi ngeen ànd ndax seen rajo Safina 98 point 2 kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na loolu miraaran ay yoon kon loolu dalay wan na leen ñi jiitu fokk ñu ñaanal leen kon bokk na ci ñaan yi gën ci néew nga ñaanal leen allahuma axfir lahu warxamu yàlla yàlla nga ko yërëm te jéggal ko noo ko waxee rek langue boo ko waxee baax na nga def ay istighfar def ci lim yaa xam téeméer la juróom-ñaar fukk lim boo def nga ne lim bi eh, jox naa ko diw laa ko yéene da kay jot wala basmala da kay jot waaw wala nga saraxel ko dara daf koy jot wala nga jàngal ko alquran daf koy jot wala nga jàngal ko lixlaas comme yonente bi ni mu ko daan defee daf koy jot léeg-léeg mu jàng ayatal kursi néew boo ko jàngal daf koy jot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 ayatal kursi yu nga jàng ko nga ne yàlla lii day def naa ko hëddiye ñi fi tëdd ñëpp moo xam benn nga def ya xam lim bu la neex rek loo ja lu jàppandi ci yow nga def ni ki noonu lixlaas ni ki loolu basmala yonente bi ne loolu dana oyofal ñi fi tëdd te di ci am yool waaw am nañu daan ñëw ci xasanul bisri di ko wax lu ni mel moom it mu di len wax ne dee leen leen ñaanal mu digal leen ñaan waaw mu digal leen ñaan te gis nañ ca mbir yu soppeeku ginnaaw xat-xat ñu gis nañoo ñu ngi ci ak yaatu kon mbokk yi déglu Safina FM 98.2 ñun ñëpp dañuy am ñu jiitu kon ñi jiitu bu ñu leen fàtte nañu leen di ñaanal ñaan rek bu la neexee nga ne amul waxtu amul bërëb fu sa xel deme ci ñoom rek def sopp nañ rek lekk-lekk nga dem doxantu ba ca armeel yi nga utal ko bés bu dee ay bés bu ne benn yoon la sax yaa xam rek nga dem fa dana la fàttali na yow it da ñëw fii tëdd fi bés te soxla nga ku la defal lool waaye foo jullee sa kër moo xam yaa ngi réew ak réew foo mën a nekk boo leen ñaanalee dañu koy jot chartuwul ne foog nga dem ba sa armeel ya ñaan fa déedéet foo mën a nekk rek boo ñaanee moom dana ci jot waaye sopp nañ dëgg yow nag lekk lekk nga dem fa ngir di fàttaleku ne dina am bés incha allah di nga tëdd fi ñu tëdd ñoom kon yéen a ngi seen émission xam sa diine tey ñuy ñëw di ubbee li nga xamante ne mooy néew ndax danañ ko ñaanal wala déet dan la ci diine wax kon dégg ngeen liñ ci indeegul bokk na ci yooyu it saxaaba yi am na ñu yàlla daan may ñuy gis ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir bàmmeel yi ñu nekk ci ay xat-xat ñu di leen ñaanal ndax mbugalu bàmmeel dafa am gis nga yenente bi bu wax ne ñaanal leen seen mbokk léegi ñu ngi koy ñaanal kon amaana ñaanal ko pour xat-xat yooyu bañ ko dal sarax yi loolu la njàngam alxuraan mi loolu la mu mu gunge la lool waaw moo tax mag ñi buñ la laa suur rek

ñaan jàng ayatal kursi ñaan jàngal lixlaas ñaan jàng istixfaar yooyu yëpp xeetu ñaan la waaw bokk na ci di leen ñaanal suuratu yaasiin waaw yenent bi wax na ci ngëneel mu ne iqra'u yaasiin ala mawtaakum waaw jàngal leen suuratu yaasiin seen ñi jiitu waaw dee leen leen jàngal suuratu yaasin ndax lu am solo la dana oyofal mbugalu bàmmeel dana leeral yépp moom suuratu yaasin waaw góorgóorlu bu baax ci la nga koy defal nga def ko rek te yàlla tax waxtu woo jullee waxtu woo jullee nga utal leen dog moo xam lixlaas la moo xam ayatal kursi lu jàppandi ca béréb ba nga nekk rek nga defal leen ko boo noppee nga ne yàlla lii day yool bi yónnee naa ko mbokki jullit yi rawatina nag diw diw bu la neexee nga cité ñang sa bëgg a gën a taamu te ñaan gu jullit ñaan mbokk jullit yépp danañ ci jël seen wàll gis nga yàlla ni mu yaatoo kon nag bu ñu xatal mbokk yi ne ñii dem ñu leen ñaanal loolu bidaa la du bidaa de sunna su wér la su sax la sax kon nañu góorgóorlu di fàttaliku ñu dem nañu góorgóorlu di leen fàttaleku di leen ñaanal nañu góorgóorlu di ziyaari bàmmeel yi waaye bañ faa def it lu ci bokkul bañ fa def lu ci bokkul ah demee rekk nga ñaanal leen waaw xam ne di nga fi tëdd ëllëg jëkka laatal seen bàmmeel yi waaw foofu it ci laaj boobu ci la mbokk yi laajaale beneen laaj ci biir ne waaw bu fekkee danañ leen ñaanal ah bàmmeel yi waaw mankat dama bëggoon a tabax sama bàmmeelu way jur ndax lislaam may na ma loolu muy lu xew ci jamono du ma ne boo demee dëkk sàngam déedéet waaye boo bu fekkente ne ku nekk da am sa néew nga jël deux mètres ba trois mètres carrés tabax ko ñenn ñi sax uti carré ko karle ko loolu nga def yow sa yéene mooy eh, fàttaleku ko waaye loo ko fàtte fàttaleku nag bul lor loo ko fàtte fàttale loo ko fàttaliku fàttaliku bul lor ndax boo tabaxee rek yaa ngi lor te lislaam digaluñu ñu tabax bàmmi armeel yi wërël nañ armeel yi ñëpp xam nañ ne fii la ku ñu fa suur rek nañu ut mandarga la lislaam wax mandarga moo xam tablo kenn bañu ko parce que du du déranger kenn tablo bu la neexee sax nga bind ci turam wane ne diw moo fi ne waaw loolu la maani a aayul waaw waaye daal tabax bi moom gënul ndax espace même amatul espace amatul boo demee ci armeel yi ñu tuddee armeeru dakaar yi ci yoof gii rek loolu barka démb njaay la fi yàggul waaye gis nga daanaka genn wàll gi yëpp bu doon trois tiers la deux tiers yëpp daanaka fees nañu feesul tabax yan fa def rek la yooyu yëpp dañ ko war a dindi yooyu yëpp dañ ko war a dindi ku ñëw suul ut màndarga rek dem waaye kenn waru ko tabax parce que espace amatul te bu yàggee ci tabax bi noonu danañ dem ba mën nañu jural laneen ci tëdd di raayax di def ay mbir yeneen ax yeneen mën na ci mën nañu ci fekk yeneen mën nañu ci fekk kon nag nañu suul nañu ko jal bu la neexee wala nga maasaale ko yaa xam noo ko defara daal bu la neexee utal màndarga def ci waye dal tabakh bi mom man na ñak parce que gënul espace amatul ta ñeneen ñu ngi ñew leg leg même bo xolé sax ñen ñi bu ñuy dugal avec difficulté lañuy am accès pour égg fa ñu jëm parce que kenn loti wu ko waaw ta nit mën nañ ko sul fiñ ta sul jamono ñu ñëwaat sul fa kanen waaye bu fekkee tabax nañ ko dootoo ko man kon nag tawax boobu bu ngeen ko mënee bàyyi moo gën waaye daal bàmmeel bi moom na ngeen fexe rek bu mu ràpp bu mu ràpp gi mooy saa yu ngeen fa jaaree moo xam ayu bés la bu ne benn yoon par semaine yaa xam par weer la boo ñëwee nga jekkalaat jekkalaat ko mu bañ a maase parce que lu maase rek ñu gaaw la fàtte waaye feex mu ngi am jëmma rek ñu ciy bàyyi xel ne nangam waaye daal tabax bi moom mën na ñàkk bu ngeen amee yéene ndëg eh, ngeen karle ko ah loola xaj na eh, yiw moom du tuut waaye bu ngeen ko jëloon dajale ko ah lu ngeen ci mën a dolli même bu ngeen ci dolliwul dara am na ay néew doole yoo dëkkal am na ñu soxla lool boo leen ci dimmali woon eh, ne lii day sarax la bu ma defal aji dem ja le ah defe naa ne kooka tëdd foofa dana kontaan lool ci yow dana kontaan lool ci yow kon nag na ngeen ci bàyyi xel yanu nañu yàlla defal tawfiix di leen ñaanal jaadu na soo demee boo mënee jàng suratu yaasin soo mënee jàng suratul mulki istixfaar yooyu yëpp nga defal ko sa bopp soo ko mënee wala bokk nga am koo sant koo xam ne mën na la taxawal loola waaye daal bu la bu bu la kenn di ko def wàllu commerce wàllu commerce dem rek toog mel ni man waaw boo demee rek toog waaw yor sa la nga yor rek toog ku ñëw rek ngunum ngunum ngunum ngunum ngunum wan naka maa ngi ñaanal diw bu demee nga lemaat la nga lem dem faneen kon yàlla taxatul kon nañuy def li wajhillaahi li ñuy def nañ ko def ngir yàlla waaye diine kenn du ko commerce ñaanal ak yu dem kenn du ci commerce ku la ku la ñaanal ndëkk koo oo naka ñaanalal ma sama mbokk wala jàngalal ma ko alquran loo yëkki jox ko rek jox gi maanaa du fay maanaa ngir seral xolom la ngir seral xolam ci ñaan gi muy ñaan ndax ñaan yéen ñu gën a xam léeg-léeg dafay bokk ci conditions yi tax mu réunir nit ki am mbégte waaw am ak dal nekk fu laab ci lu sell kon loolu rek mooy jubluwaay bi waaye kenn waru waru ko commercialise demee si sëg yi gaa yaa ngi toog suñ la gisee nga dugg rek yàlla def nag bu fekkee nag Eh, da mel ni man sol lu oyof kenn du la faale waaye boo wàccee sa oto sol sol yenn yi rek ñu toppale la ubbi seen jukki rek commencé toppala waaw yooyu doxul kon nag nañuy ñaanal néew yi ku si ne man nga ñaanal sa néew te ñaan googu wax dëgg yàlla yomb na kon mbokk yi loolu ci baneen wàll baneen bi ci yooyu mbokk yi laaj ginnaaw néew boobule la ñuy def ndax juróom-ñetti fan ñetti fan ñeent fukk yooyu yëpp dañu ko utal lim rek waaye ñaanal aji dem moom ajowul ci ñetti fan ñeent am na nag ay fan yu baax euh, nangam bu tolloo fii bu tolloo fii waaye daal li ma ci mën a wax mooy ñaanal aji dem saa yoo ko jubloo rek def ko saa yoo ko jubloo rek nanga ko def te ñu moytandoku mu jural ñu mu di ñu jural bokk àdduna oote ay xew def fii ay mbir yooyu yëpp jaru ko ndax ñaan toroxlu la laaj ñaan dafa laaj toroxlu parce que kuy ñaan amuloo ki ngay ñaan kan la mooy yàlla te yàlla nag doo rëy bëgg nag di ko ñaan yàlla da ngay toroxlu waaw mu am bépp discrétion dañ ko ci soxla ci wàllu ñaan jarul o oh, nit ñi fii gauche droite ku si nekk nangam ñëw nii na déedéet waaw boo ci amee ko ci yaakaar rek nekk ah diw dey bul ma ko fàtte ci ñaan waaw bul ma ko fàtte ci ñaan kooku du ko fàtte waaw su ko defee nag ña ngay oo pour ñu taxawul la loola bu dee togg la koy togg jox ko doomu aadama yi bu dee alxuraan la koy jàng ngir doomu aadama yi ool ña nga say oo waaye nag jarul nag mu mel ni cérémonie boo xamante ne àdduna la parce que bu ñu fa toogee def lu ñu def li des yëpp mbiru àdduna lay doon après kon yooyu bu ñu ko mënee moytandiku moo gën waaye di ñaanal aji dem yi kooku moom du fi jóg mukk sunna si yonente bi la kon sàmbaa ngi ñu kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam baarakallah jërëjëf sama yàlla na yàlla fay kon nag mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 fii ci Scat Urbam ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziar soppeek fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci teewlu gi ngeen di teewlu ci soxna Thiaba Ali ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar yaa yan yàlla dolli seen sutura bu baax eh, fàttewuñu suñu yaay yaa ñu ngi koy nuyu moom it macha allah soppe yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi. am kontaante ci yéen fàttewuñu waa Ngor waa Okam soppe fa nekk fàttewuñu waa Jëppal fàttewuñu waa Castor macha allah yan yàlla defal leen jàmm macha allah waa Géeje waaye it fàttewuñu leen ñoom Mountaga Gueye Abdou Aziz Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla fu ngeen mën a nekk rek waa Astu Ngom wala ci Padoa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it yal yàlla sàmmal ñu leen yéen ñëpp incha allah dolli seen sutura. fekk ngeen mën nekk rek yàlla na borom sutura si defal leen sutura bu baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla sàmmal ñu leen yàlla na yàlla fayal ñu leen gën ci fay waaw gën ci fay wax dëgg yàlla ñu ngi am kontaan fàttewu ñu soppe nga xam ñu ngi fële ci kàmbareen macha allah ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu ñu ngi leen di nuyu bu baax rek ñëpp fàttewu ñu kenn kon nag ci 98. 628 10 95 si ñaanal ñi dem yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen ñoom ñëpp eh, kon nag loolu ay laaj yu fi ay mbokk indi woon ko defee ku bëgg a dugg rek comme ni ngeen ko xamee ci 88 628 10 95 mooy ko mujj koñ ku fëgg rek incha allah sàmba dina la ubbil 88 628 10 95 kon nag mbokk yi eh, ñii jiitu. dañu leen war di bàyyi xel di leen fàttale ko bu baax ndax am na loo xam ne mënatul mënatuluñu ko seen bopp mënaluñu ko seen bopp def nañu li ñu waroon def kon nag jiitu nañu nañ leen di fàttale moo tax yenente bi ne jëf yëpp day arrêté ci ñoom ba mu des ñett kon ñaan gi dafa am solo te bokk na ci yooyu gën ci ñaan ñi ko yonente bi indee allahuma axfir lahu warhamhu bu dee jigéen allahuma axfir laha warhamha yooyu yépp ñaan yi nga xam ne yonente bi indi na ko ni mu baree formule yi loo ci man rek nga di ko def bokk na ci yi ci gënit ñu ban leen ko defal e, mooy saraxe leen ndox buñ ne ndox lu mel ni bën na teen comme ni ma waxe woon sànq utal nit robinet ne li dee diw laa ko tudde yool bi daal diw laa ko defal waaw nga boo nekkee ci réew tax yi fu mel ni dakaar wala lu ko wër nit soxla fi ndox nga ub xëccal ko defal ko benn branchement ne yool bi defal naa ko diw mooy gasteen ne defal naa ko diw kon yool boobu daf koy fekki toujours te ndox moom am na solo parce que doomu aadama bi lu muy def rek dafay soxla ndox waaw ah, dafay soxla ndox waaw gis ngeen jamono bi nii réew mi tànge eh, tàngaayu tar na lool kon nag ku si ne même boo sotteekoo ndox da ngay yëgaat sa yaram ak féex kon nag tàngaay wi yàlla na yem rek fii ci àddina kon nag ndox dafa am solo ci dund doomu aadama kon nag defal nit ki ndox sara xel ko ndox yool bi daf koy fekki waaw kooku sadaxa jaariya la waaw wala nga togg ñam ci anam yooyu waaw togg ñam waaw nga xamante ne eh, doomu aadama yi dañ dañ siy xéewlu mu nekk njariñ ci ñoom togg ñam eh, jox sa dëkkandoo yi dafay nekk njariñ ci ñoom togg ñam dëkkandoo yi ndaw yi xale yi dafay nekk njariñ ci ñoom kon daal eh, yooyu yëpp xeeti yiw la yoo xam ne mën nga ko di faggul aji dem ji kon nag bu ñu ko xeeb allo salaamaaleykum. salaamaaleykum imaam. ah Papa war nga wan. wan jàmm rek kay. jàmm rek wan. waaw wan. ñuy jiitu yal nañu yàlla xaraat allahuma amin ya rabbi yàlla tàkk barke rasul amin wan amin wan eh, so eh, woon sëriñ waaw jamaanu bi danoo dooy waar de wallaay dëgg wallaay dëgg ku dee ñoo lay sanga ñaanal yàlla wallaay dëgg wallaay dëgg kon nag sëriñ moom war nañu ko bay gannaaw jërëjëf wan jërëjëf yal nañu yàlla teeseen allahuma amin wan yàlla na yàlla àggale yéene amiin yaa rabbi yàlla na yàlla def sutura allahuma amin amin amin li ci mooy environnement bi nga wax sànq dëgg ku mel na Thierno Yero uh-huh. ci environnement bi la bokk wallaay def jàkk uh-huh. yóbbu ay nit mag wallaay dëgg la dafa al daara alxuraan uh-huh. yàlla nee na dégg naa sànq Diagne mu ngi wax ne pour affaire tariq Cheikh Tidiane. waaw. xam nga ku bokkul tariq Cheikh Tidiane du ko jege Cheikh Tidiane. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. du ko jege. dégg naa da ngeen di wax ne. Eh, rasulu eh, eh, kii ni mu tuddaat Cheikh Omar. Cheikh Omar. tuuti taal bi mu demee si yonante mu ne ko. soxla naa la mu ne la ko. comme ko yàlla bëggul ku la lu la naqari man du ma def lu la naqari. wallaay wallaay wallaay wallaay bu buggee def tariika bi lan lu ko wax mhm. am nga am nga yéene bi am nga mhm. xam-xam gëm bi am nga magaama bi waaye su doon suma sago te mhm. jël salaatul faatiha moom lay gaaral allahu akbar allahu akbar wallaay moom la jël kon nag nga xam ne salaatul faatiha yàlla jox yonant bi te yàlla nag moo sàkk doomu aadama yi wallaay dëgg la moo xam bindeef yi ki nga xam ne bokkul ci tarika Cheikh Tidiane du ko jéggi Cheikh Tidiane wallaay dëgg la wan wallaay wan ku ku bokkul ci tarika eh, yonant sallallahu alayhi wa sallam du ko jéggi la dëgg la wan kon nag yàlla ñu yàlla taas ci barke amin ya rabbi amin wan amin amin amin amin yéen daal li ngeen di war def def ngeen lépp jërëjëf jërëjëf doomi adam nag dafa dëgër bopp jërëjëf jërëjëf mu ñëw daal jërëjëf wan mu sonn naa mu ne ma dafa mel na léegi nit yi jógee léegi Mali uh-huh. di def foofu Dakar indi fii ci Dakar di di ko suuse uh-huh. léegi président daal di bind leetar àggaleen foofu mu ne ko ñi fi nekk man baal naa kon lu ñuy def du def leen di bàyyi wallaay daf leen di bàyyi mu ne ma fidaaw noonu la mel fidaaw wallaay dëgg la wallaay dëgg la kon nag yàlla nañu yàlla saaki amin yaa rabbi allahuma amin amin maa ngi nuyu suba sëriñ bi jërëjëf mu ngi lay fay incha allah mu ngi lay fay sëriñ sëriñ la ku ñu déglu ku ñu laaj sa yee ku ñu laaj ah, sa ku ñu laaj sa ali ku ñu laaj jërëjëf laaj la nii la ci affaire diine nga wax ko jërëjëf soo ñëwul ñu xaar la wallaay dëgg la soo ñëwee ñu xam ne li wax dëgg la dëgg la ah. ko yàlla sutura allahuma amin wan amin wan eh, autorité safina yi ñaana leen yàlla jërëjëf wan jërëjëf wan ndax ku wolof nee na ku dem ci yàlla di ko ñaan yóbbul paan yóbbul paan ah. <laughs> <laughs> bul bul pot autorité autorité safina yëpp ay commerce la macha allah leen yàlla yal nañ ngeen defal jàmm ñoom nee nañu ah, en tant safina mu ngi fi bis bu nekk lu ñu am jaral eh, allah wallaay wallaay nga nuyul ma suma goro ñu ma mu ngi lay fay mu ngi lay dégg wallaay mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg sa sa soppe sa xarit El Hadji ngaa la ah. dafa am tiis eh, magam moo wàññeeku waaw so soppe yëpp it ngeen ñaanal ko El Hadji Baye ngaa la ci mag yi safina yi soppe yi moom it eh, magam moo génn àddina kon nag euh, soxna ndey Koura Dia yan na ko yàlla xare aljana te yërëm ko incha allah kon nag El Hadj Baye Ngalla ñu ngi la koy jaal bu baax a baax di jaal njaboot gi yëpp di leen massaw macha allah ñun Safina ñu ngi la koy jaal ñoom ma Thierno Hamidou ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ndax jamono bu ne yaa ngi oote yaa ngi xiiftal sa njaboot ci rajo bi yal na yàlla euh, fayal ñu la. aji dem ji yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko macha allah kon nag si 88 628 10 95 paa war go wan nee na kuy ñaan yàlla na nga yor paan ko nag sàmba dégg nañ loolu macha allah kon nag dalay wan na yërmande yàlla yaatu na te yàlla li mu am daf koy joxe wax dëgg yàlla kon nag uh, udu allah wa antum muqinuuna bil ijaba na ngeen koy ñaan te am yaakaar ne dana leen nangul te incha allah parce que yàlla yërmandeem yaatu na yàlla na yàlla defal tawfiq ci 88 628 10 95 salaamaaleykum waaw ah, maa ngi lay ziar soppe yi nam nam nañ la Malick ñu ngi ziar Malick sant yàlla bu baax Malick noo def jërëjëf Malick jërëjëf amin yaa rabbi Malick amin baan amin baan ñëpp a ngi la koy delloo wallaay baan waaw jigéenu El Hadj Baye ngaa la ja macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaay dëgg la jërëjëf Malick yéen kenn gënu leen yàllaay ñu ngi leen di ñaanal jërëjëf camp bi it maa ngi leen di nuy bu baax baax baax a baax jërëjëf wallaay dëgg la wallaay dëgg la incha allahu rabbi incha allahu rabbi wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah macha allah macha allah askay askay askay askay macha allah jërëjëf jërëjëf wallaay bu sooba yàlla incha allah incha allah Malick incha Bal wallaay jërëjëf wallaay jërëjëf yee ko génn la kenn gën la wallaay jërëjëf Malick kenn gën la jërëjëf jërëjëf Malick jërëjëf incha allah jërëjëf malik jërëjëf ñu njaboot bi ñëpp incha allah jërëjëf yal yàlla kontaan jërëjëf Malick macha allah kooku mooy Malick Baan macha allah di nuyu homme de waa ka Malick si sapeur pompier ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah ay soppe rek ñoo fa ne di teewlu Safina FM 98 point 2 kon nag mbokk yi yal na yàlla defal ñëpp tawfiix doolu ñëpp sutura si 88 628 10 95 mooy bu mu jokkoo gi allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Pape Mor. imaam ñu ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar fay. di ziar waa rajo bi ñëpp. ñëpp a la koy delloo. di ziar euh, Pape no mbawa ga wan machallah uh, pape amadou sow libas machallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallay wallay wallay wallay jërëjëf allahuma amin ya rabbi allahuma amin ya rabbi wallay dëgg la wallay dëgg la wallay dëgg la dëgg la dëgg la kay dëgg la ñëpp a ngi la koy delloo jërëjëf jërëjëf amin jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf Pape yal na yàlla doolu sutura bu baax a baax ko mooy Pape Mor di nuyu waa Yoof ñëpp ak lu ko wër ci 88 628 10 95 kon nag su ko defee euh, euh, ñaanal leen dafa am solo gis nga lii góor gi paawar war wax euh, defal nit ki intervention la lu jiitu naa la dina mag ñi luñ def rek noonu la allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. wa barakaatuhu El Hadj ñu ngi la koy delloo bu baax a baax baax a baax a baax jërëjëf El Hadj jërëjëf jërëjëf El Hadj jërëjëf walaay maam ngaala walaay dëgg la dëgg la dëgg la waaw ma am benn laaj bu ma la laaj bismillah bismillah ki nga xam ni waajuram dafa wàññeeku léegi at mi ñëw na pour ñu ñaanal ko mhm, mhm. amul doole xam nga jamono bi léegi li xew suñu jamono bi mhm, léegi nga bëgg ko jël pour taabil loolu te amoo doole boobu nooy def نوي ديف جيرهجيف ني موي ديف ما شاء الله يالنا يالا دوري ستره جيرهجيف نون كاي نون كاي زيار ديكو بالا جيرهجيف جيرهجيف ما شاء الله جيرهجيف جيرهجيف امين يا رب امين يا رب الاز وا يالنا يالا دوري ستره بو باخ واي الاج مالك كو باخ لا ني موي ديف مبوك مومو آه، لا غاي ديفون اخ يونتي بي رك لا كوي واخ ahlu sufa dañu ñoo yonente bi nekk gaay yi jeexal nañ tiyaaba yi amuñu lu ñu def suñu ñaanee ñu ñaan suñu ñu ngi saraxe te ñun amuñu lu ñu saraxe mu ne ndax amuleen ñu nag mu ne joxal jox leen tur yàlla yi leen def ay tasbihaat ndéy la senn ñu ñëwaat nag wax ko mu ne zalika fadlullahi yutihi man la sha ah loolu nag mënuma ci dara yàlla koy def kon su ko defee defal say istighfar defal say basmala defal say kursiyu defal say lixlaas defal lim boo ci man defal lim boo ci man amaana sax noonu nga tooga yow rek di ko def wala koo ci yaakaar mën na la si jàppale mën na ëpp yool bële parce que léeg-léeg nit mën def comme nit bu doon def lu manul coono fekk ko fa lislaam tegatu ko ko kon nag defal li nga man laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha ludul dul li la yàlla jox kon li disponible rek jamono boobu la def ko kon defal li nga man kon nag bul ne forcément kaamil rek la ñu war a def déedéet kon ndox mu ngi fi jàng kaamil mu ngi fi togg ñam amu fi yooyu nag bu fekkente ne dafay laaj poos bu diis te poos bi diisul waa làmmeñ wi nag dina oyof kon làmmeñ wu oyof fi ngay jël defal say lixlaas defal say kursiyu defal say basmala loo ci man ci inna anzalnaahu defal ko yooyu yëpp su ko defee incha allahu rabbi dana ko jot te dina yëg na ñaanal nga ko kon foo mën a toll ak situation bi li mu mën a laaj am nga loo mën a ñaanale aji dem ji kon nag yàlla yàlla defal ñëpp tawfiix elage ku baax la borom xam-xam la fi muy laaja kon mu ngi soññ ñeneen ñi pour ñu bañ a dem nag ne automatiquement foog ñu toppatoo ji loo xam ne dafa jafe si ñoom pour mën a forcément wàcc kaamil pour nangam pour nangam pour nangam kon nak xéti ñaan yi bari na yalla yàlla defal la ila El Hadji Malick macha allah ci 88 628 10 95 boo fëggee rek inshallah sam sàmm dana la ubbil waxtu wa nga sori su ko defé di nuyu sopp yëpp sha allah suñu sop suñu wéjë pap Amadou Sow faté ñu la ben yoon radio rajo le secrétaire Dieynaba it ñu ngi koy nuyu sha allah mère Sow ñu lay ziar bu baaxa baax njabot gi bayiw ñu kenn yalla yàlla defal ñëpp tawfiix yalla yàlla doli sutura yi bu baaxa baaxa baax su ko defé kon mbokk yi ñaan dafa am solo jullit dafa war di ñaan jullit dafa war di ñaan ki ñu ñaan kenn la mooy yàlla nga tàllal ko say loxo soo ko ñaanaa rek amal yaakaar ne incha allah dana la nangu waaye bul découragé mukk bul découragé mukk ñi jiitu barzax aussi bu ñu leen fàtte mbokk yi ndax ñun ñëpp incha allah dañu leen di fekk ñun ñëpp dañu leen di fekk yàlla na yéex rek la ñuy wax waaye dañu leen di fekk te kenn ci ñun bëggul soo fi jógee ëllëg ñu fàtte la kon nag nañu leen di ñaanal bis bu ne saa su ne waxtu julli woo julli rek sa xel na dem ci ñoom donte le xat na xat na xat na ci yow sa xattaa nga def benn lixlaas benn lixlaas muy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalide walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga ne yàlla yool bii day yéene naa ko néewi julli di rawatina diw incha allahu rabbi dana si don tele le xat nga waaye nag rawatina boo amee temps nga nga def ay lixlaas yu bari def ayatal kursi yu def say basmala comme ni ko yonente bi jàngalee kon ñaan mbokk yi ni nga ko mën a defee bari na lool yërmande yàlla yaatu na kon nañ leen di ñaanal ci 88 628 10 95 su ko defee di ziare ba yi foo dégg ñu ne ñu ngay oote di ko nettoyer di ko toppatoo nga dem fa ndax loolu yool la fàttaliku la ndax foofa rek li ñuy wax mooy këru dëgg ndax ñun ñëpp danañ fa tëddi incha allah ku si nekk sa jëf rek moom ngay njeganaayoo sa jëf kon nag na jëf yi sell bu ñu laa dem nañu góorgóorlu ci loolu bu baax mbokk yi waxtu waa ngi sori waxtu julli bi julli yi bu waxtu wi laa jeex incha allah xam naa góor gaa ngi ñuy bàyyi xel ci semaine bi boo xoolee waxtu wi fajar gi fajar lu si am solo la mbokk yi dañu koy bàyyi xel di nuyu professeur Abdoulaye Sarr macha allah moom it ci waxtu yeex yépp yàlla naka yàlla defal tawfiq fajar bi mu ngi ci 5 heures 45 lañuy la ñuy salaatu six heures ñu taxawal julli 5 heures 45 cinq danañu salaatu 6 heures ñu taxawal julli timis bi mu ngi ci 7 heures 2 minutes 7 heures 2 minutes geewe gi 8 heures 2 minutes wala bu ko rombee wala bu ko wàccee tuuti kon fajar gi 5 heures 45 salaatu jot na 6 heures ñu taxawal julli mbokk yi yal nañu defal taw fii kon nag la fàttali rek mooy nañu góorgóorlu mbokk yi xam ne fii du kër mbokk yi nañu góorgóorlu xam ne fii du kër ñun dañu fi ñëw te dañuy delluwaat jox nañu yitte àddina lool àddina baax na moyen la rek pour mën a def lañu ñu bëgg a def ci jaamu yàlla ci jëflante àddina yi waaye bu ñu yaakaar ne dafay sax déedéet bu ñu fàtte mukk suñu cër suñu diggante suñu boroom ñun ñépp ci yem ba ci kii di wax ku ci am rendez-vous ak kilifa doo bëgg rendez-vous ba tardé bu ne la quatre heures boo moytul sax trois heures et demi di nga dem taxaw di ko xaar bu la njiitu réew oowoon wala ministre wala keneen ku mu doon waxtu wa bu laa jot di nga jóg waajal buñ ne la da ngay tukki tey ñu ngi la convoqué 19 heures 19 heures doo rate boo moytul sax nga ne 17 heures laay dem parce que damay bañ a rate vol bi boo amee rendez-vous ak médecin bi yaa ko fay jiitu bu ne 8 boo moytul bu ne 9 boo moytul 8 heures di nga ñëw kon yu demee noonu di mbiru àddina baax na nit day fonk rendez-vous mais ki ko jar dëgg-dëgg waaw bu wootee ko nit nañu góorgóorlu ñu ngi uyu naam waaye nañu gën a farlu muy borom bi subhaanahu wa taala bu dee waxtu julli rawatina fajar nga ne dama sonn naa nelaw tuuti démb dama guddee tëdd naa nelaw tuuti naa nelaw tuuti su ma yeewoo julli naa nelaw tuuti yërmande yàlla yaatu na te bu dee àddina mbokk yi doo nangoo rate benn rendez-vous kon nag rendez-vous borom bi góor góorgóorlu bu baax bu waxtu jotee nañu ko jóg joxe yàlla daf ñu fi indi rek ngir ñu jaamu ko kon nag nañu góorlu ba mbir yi rafet nañu jox mbokk yi yàlla li mu moom yàlla daf ñu jox lépp gratuitement laajuñu ci dara kon nag nañ ko delloo njukkal. nañu nekk ñu reconnaissant moo tax suñu borom di wax ne da ngeen bëgg àddina lool ba mu gënal leen àllaaxira boo demee si suratul anla bal tuusiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrul abqa yàlla ngi wax naan vous préférez plutôt la vie présente alors que au-delà est meilleur et plus durable kon nag doom aadama bi nay bàyyi xel loolu bal tuusiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa di leen dox daje aljuma bi di ñëw incha allah ci beneen thème ci xam sa diine su ko defee ku ci am laaj wala yu ni rek ci 77 614 94 92 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.